Euh, ki nga xam ne dañu ko maintenir dans un blocus inexpliqué kooku nan lay ñëwee ci dialogue ay nitam nekk en prison kooku nan lay ñëwee ci dialogue est-ce que yéen euh, warul leen woon euh, tamit agiter un peu le le, le drapeau blanc. Mm-hmm. ah mm -hmm. vous, vous vous de Ousmane Sonko. waaw nan nan lay ñëwee. non xam nga Maïmouna man quand je vois cas Ousmane Sonko damay Youssou Ndour damay euh, que je salue euh, dafa am waay bu mu waay ni nit dina la bëgg ba sànk la hmm. c'est-à-dire que moi je pense que ci dialogue bi imagine euh, imaginez ce que ça au-delà de ay passion yi ah au-delà de ay bu mu dem noo naraag ba naaw maa ngi nee nañ ku ku ku ko ku la juróon dina la yërëm dama wax fii sa plateau bi benn bi ma ni la biologiquement laa wax biologiquement c'est-à-dire biologie mooy tànk loxo nopp bakkan baat ba gémmiñ ce que euh, cette li nga xamante ni lépp moom yenu na ko en terme de combat politique loolu xajul ci loolu loolu nit nit la rek et bu amee benn moment bi nga xamante ni war na mën a dem toog wax li mu xalaat ba pare génn i ak nu mu ko defee woon mois je pense que ñiy euh, wax ni ay bloc imagine toi tey par exemple dañuy ay bloc ce que ils sont répond et dit je venais au dialogue. mais il veut venir parce qu'il est invité non non je donne un exemple. à supposer que moo waxoon ni rek damay ñëw xam nga xam nga ki ni ñëwuma ki ni euh, dootuma wuy ji justice ki ni euh, et puis par exemple justice bi nga xamante ni tey yow boo nekkoon candidat ñaar ñoo koy def ñoom ñooy nangu sa candidature. boo nekkoon tey président de la république mooy ñëw nangu sa serment gendarme bi nga xamante ne ñoom la yow c'est-à-dire que yow tu es un sérieux aspirant c'est-à-dire que mooy am nga parce que nag nañu waxante dëgg ku génn ci élection am am 20 pour cent c'est c'est c'est 15 ah. 15 pour cent nga avancé ak li nga xamante ni moom ngay am nga nga bëgg nga nga nga teg dara mais vraiment am nga chance su am dara mais chance boobu. dama jàpp ni li ko euh, yàq li nga xamante ni mën na ko yàq parce que yàlla rek xam xam nga fondamentalement may mun dafa am partie bi nga xam bu ñuy wax ba ci yàgg nag il faut ñu delloo ci parce que yàlla rek xam ëllëg kan lay doon mais dama jàpp ni dama jàpp ni foofu fi may terminer mooy di ne que euh, dara terewul woon bi ñu lancé dialogue bi que Pastef même bu ñu demul tu vas voir des gens qui non demuñu waaw mais demo te yow demoo léegi la ñuy décider fële bu ñu ñëwee dans tous les cas bu ñu koy appliquer ñëpp lañu koy appliquer donc je pense que. li ah. ñi la ñi la xelal wala ñu wax la ni demoo rendre ñu la un service bu la mën a amal njëriñ.